xeex bi nga xamee ne njiit réew mi song na ko pour xeex ko euh, ni mu ko tàmbale woon te fii ñu dikk ne gisaat ne dem mbir mi delluwaat gannaaw gi ak ni Sénégal yi dikkee daan ci dikk léegi daan ci toftal tamit lépp loo xam ne jëm na ci wàllu transport bu jëm ci wàllu raay bi ak li ci xewoon lépp. nga war ko mën a fàttali nit ñi également sa position tamit fi nga toll nii ak xam naa ni nitu politique nga sa base politique il ñu wax ci tuuti ba xam foo toll. yaa ngi ñu ngi fidèle ci yow ba léegi parce que li ñëpp euh, reconnaître ci histoire politique mooy élection yi nu génn sans coalition da ngaa gagné. waaw département bi waaw ah, département bi yëpp yaa yaa ko gagné. waaw ànduma kenn. ànduma kenn ci département bi. yow kot. man kot nga gagné. coalition mu gagné coalition PS PDS Rewmi ak d' accord léegi jëlal kàddu gi nuyoo ñu dem ci waxtaan bi. bon maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa waa Sud FM di leen gërëm. tabaarakallaahu ñu ngi la ci sant bu baax a baax di la gërëm Abdou Ndéné Sall alors. ñu xam sa taalibe ah, aussi ñu ah, nangul la ko tam ah, wax dëgg yàlla sa taxawaay mm-hmm. et ci kër diine yëpp yow moom <laughs> man kër dina yëpp parce que dama am chance aussi dëkk Tivaouane. ba pare aussi président Abdoulaye Wade projet bi mu doon def mooy les cent milliards yu mu def Touba. man man man lañ ko joxoon man maa koy man maa ko maa def maa def étude yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. Ah, ak projet yi nga xam ni aussi xalif bi moo ko waroon def directement. man maa def maa leen defal étude yëpp yëpp yëpp yëpp yu nga xam ne ñoom ñoo ko financé seen bopp. d'accord defal leen études yi may leen ko et tout ça donc vraiment. man communauté religieuse yëpp sama xarit waaw fépp laa bokk. waaw d' accord alors Abdou sàll Sall coronavirus bi fii ñu toll nii ban jàngat nga ci am. jàngat bi ma ci am mooy que mois ba léegi. ma jàngat bi ma ci am mooy que yàlla dimbali nañu ba nga xam ni que euh, ni mu mel c' est à dire euh, euh, wex bi mu wex Europe ak yeneen dëkk yi yàlla dimbali nañu ba wexaay boobu quand même waxewul waxewul noonu Sénégal yàlla dimbali ñu ba nga xam ni. mu gaawul ñëw ci ñun mu mujjee ñëw ci ñun ba nga xam ni que dinañu xool dëkk yeneen yi nan nañu nan nañu réagir ci virus bi ñu ñu jéem a def même chose ba pare améliorer ko. Mm-hmm. loolu moom yàlla may nañu ko. Mm-hmm. donc ba de ce boo gisee boo xoolee depuis bi mu fi amee ba léegi le nombre de morts te benn nit presque la par jour. Mm-hmm. benn nit par jour ah. te boo jëlee accident rek accident rek xam nga y a six cent morts par année boo ko jëlee muy ñaari nit par jour. accident rek loolu lay indi te taux de mortalité Sénégal mooy ñiy décédé boo ko jëlee ci pourcentage population muy à peu près neuf pour cent te deux muy à peu près deux cent quatre-vingts morts par jour. donc bu fekkee dafa am benn maladie bi nga xam ni kenn rek lay rey par jour war nañu xoolaat benn stratégie ah boo xam ni que dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy aussi ba di vivre c'est-à-dire dañuy aussi di dund euh, ba pare sóoraale virus bi. au lieu de di ñuy wax di vivre avec le virus dund sóoraale virus bi. Mhm. te sóor virus bi boo xoolee ñu woo ay spécialistes ñëpp ñu wax ñu ne que les mesures barrières mooy que ñuy takk masque euh, et respecter distanciation sociale bi ba pare vraiment moytu. Mhm. ah moo ñuy aar ci affaire virus bi. boo xool chaîne contamination yi yëpp bu ñu xoolee chaîne contamination ñu jéem leen identifier mooy les cas contacts daal leen dajale fenn. daal leen di faj pour pour virus bi. bañ a bañ a bañ a bañ bañ fa donc vraiment liñ ci defagul yépp ñuy ngi gërëm eh, vraiment ñi nga xam ne ñooy toppatoo virus bi mu ñuy toppatoo maladie bi mooy ministre la santé ak équipe bi yépp yi nekk eh, fajkat yi nekk ci santé yépp vraiment def nañu un record parce que boo gisee nombre de morts ci am yeneen dëkk yi nga xam ni ñoo ñu ëpp. Eh, doole doole donc vraiment Sénégal def nañu record. seen stratégie bi ñu jël baax na léegi nag le problème mooy que xam nga virus bi mën nga ko am sax ba pare wér te doo dem benn hôpital. Mhm. donc virus bi ba léegi kenn comprendre ko dañuy dañuy tâtonner rek ñëppay tâtonner kenn comprendre ko ni ñu ko war a comprendre. Mhm. Hmm? Mhm. parce que am nañ ciy wér am nañ ciy wér dem hôpital am na ñoo xam dañ ciy wér toog seen kër am na ñoo xam mën nañ ko am ba wér ba wàllu ko ñeneen. te ñoom feebar du leen dalal. boo gisee ñun cas yu métti yi ñu am mooy cas yi nga xam ne dañoo âgé. ba pare amoon benn maladie bu chronique. bu mm-hmm. nekk ci ñoom. Mm-hmm. waaw ñoo waaw ñooñu ñooñu ñooñu rek ñi ciy décédé ñëpp dañu âgé ba pare amoon benn maladie bu chronique bu nekk ci ñoom ñooñu bu leen dalee xëy na dinañu faatu et tout ça mais vraiment ñi muy dal ci jeunes yëpp te amuñu woon benn maladie bi nga xam ne chronique comme ay jabet comme ay truc yooyu yëpp wala maladie respiratoire ñu ñëpp quand même gën ci génn sans sans problème donc vraiment nañu déglu li nga xam ni. Euh, autorité sanitaire yi digle nañ ko président de la république jaraat ko parce que moom xam nga ko mooy président la république bu jëlee li nga xam ne autorité sanitaire yi wax nañ ko mu génn ci rajo yi génn ci télé yi wax ko bu ko ñëpp respecté rek vraiment dinañu dinañu ñu loru ci mbas mi nga xam ni moo xew ci dëkk yëpp te xew ci Sénégal Abdou Ndéné Sall yaakaar naa ne yow amuloo suuf ci corniche bi man de dama lay waxuma la corniche sax mhm. bi ma nekkee ministre 2012 2014 laa nekk ministre. Mhm. nekk naa kon cinq ans ministre. Mhm. benn suuf wala benn kër bu bees wala oto bu bees bu ma am bu fekkee am naa ko depuis 2012 léegi. Mhm. koo xam jëlal ma may la. ah bon aw ma ci aw ma oto bu bees aw ma kër bu bees. pourquoi sobriété boobu. mais parce que dama koo toppatoowul. dama ah dama non non toppatoowuma. pour am suuf toppatoo ma pour am parce que yàlla dimbali ma ne maa ngi doon liggéey dans le privé yooyu yëpp amoon naa ko ba pare. te vraiment amoon naa ko ba pare te dañuy wax ni wërsëg mooy li nga lekk. Mhm. li nga naan li nga munguru boo ci amee benn wala ñaar doy na ko nit day doylu boo doyloo rek doo am benn problème man boobu ah bi ma nekkee ministre ba léegi aw ma suuf bu bees awma kër bu bees. li la yàlla joxoon rek ca nga yem. ca ma yàlla joxoon rek ca laa yem yàlla mayoon na man nag wërsëg ba bi may ñëw lépp amoon naa V8 sax laa indaale man bi ñu ma man sama v dem. sa oto sama oto ba oto bi nga xam ne boo nekkee ministre moom la doy jox man moom laa indaale. d'accord. bañ ma joxee oto dama ko dem gaare sama kër. ba ñu wàcce ma ma jëlaat sama biir yi. kon yow tuddee boulimie foncière bi yow mucc nga ci. ah man mucc ci de mosuma ci mosuma ci bëgg. même en dehors de Dakar. même en dehors même en Tivaouane géem a dëkk. Mhm. la fa sama mam amoon rek doy na parce que ku ku dalal Alaaji Maalik ah, daggal ko xam nga am naa tere foofu yu bari. <laughs> Ah, ah jëndaatuma benn terrain damay maye kay mais man jënduma terrain. d'accord hmm. Abdou Ndeye nag ci loolu euh, ban lecture soit politique wala sociologique nga am ci coow li am ci. foncier en général parce que historiquement. xam nga xam mooy. parce mhm. que parce que le président de la république dafa am ay jamono mu name woon fi Doudou Ndoye. waaw ah. vous vous rappelez de ça. Doudou Ndoye waaw. ci problème domanial bi. Mhm, ba mu yàgg Doudou dem yàgg mu def rapport am problème. mu def Moustapha Souran. waay Moustapha Moustapha Souran ñëw xam naa affaire yi jaxasoo mu di génn ci. Mhm. alors mu Macky Sall wax ne bon dana jël ay matuwaay ay dispositions ñu xool problème foncier bi wax fii nangam finalement gis nga li ci xew. kenn ko jàpp mën naa mën naa la wax ni président. Hmm. xam nga xam nga boo fee boo gisee première campagne am. Hmm. mu njëkkee génn mu nga génn uh, Ngor. ci wetu ci wetu aéroport. Ah. foofu foofu la génn wax affaire foncier bi. donc depuis lors foncier bi bu ñu xoolee xam nga yenn saa yi nit ñi wax bi moo bari ah mais nañu xool attribution yi des attributions. Hmm. ak autorisation autorisation de construire yooyu yëpp quoi. Hmm. gis nga affaire suuf. dafa commencé depuis 1960. régime yi fi jaar yëpp. oui ils ont fait bu ñu ko buñ ko bu ko defoon bu ñu defoon un diagnostic sérieux te nañu xool ni que sérieusement yu bari yi nga xam ne am nañ seen suuf ñu ko amee woon ci temps wu régime mu ak plus longtemps temps wu régime Abdou Diouf. parce xam naa ko parce que man ministre laa woon ah vraiment je vous dis président mosuñu ñu may yu tere ñun ñu doonoon ministre ah. président mooy ñu tere man bokk ak ñi ma nekkaloon ñi nga xam doon naa waxtaan ak ñoom parce que eh, dañu ni ñuy toogee woon dañu doon waxtaan ñi ma ci laaj ñëpp kisuma ci kenn ku président ma yoon tere donc kon xam nga président doon may ñu day jëkk a may mm-hmm. ah ñu may ñu terrain donc vraiment donc moom def na ci une gestion mais xam nga boo fekkee titre foncier boo amee bu ñu la mayee terrain ba nga transformé ko titre foncier maintenant affaire de construction dugg mm-hmm. quelle que soit la puissance du président du ko mën a ñëw rek wañ sa loxo dundi ko xanaa mu jëndaat ko ci yow parce que la constitution dafay protéger les titres fonciers moo tax ñu ne titre foncier c'est un titre toi mhm. c'est ça moo tax tubaab bi ñu bëggee bi ñu bëggee tabax kii bi ñu dem négocier ak tubaab bi ñu defal leen titre foncier mhm. nga xam ni titre foncier boobu loo ci nar a def il faut que la constitution mu protéger na titre foncier boobu et tout ça donc loolu loolu mooy la difficulté ci affaire suuf si man nga am man nga am euh, intention boo ñëwee nee dina am procédure fu mu toll ba nga xam ni dootoo ci man def dara lu dul jëndaat rek indemniser jëndaat te suuf boobu bu fekkee da ngay jëndaat da nga koy jënd ci prix bi mu prix di marché yokkal ko ci quinze pour cent. ok donc c'est très difficile donc c'est extrêmement difficile donc vraiment moo tax. ñu war a def une loi bi nga xam ça protège espace yi nga xam ne bëggul ñu tabaxoo. ñu def une loi bi nga xam ne kenn mënu koo jaay kenn mënu faa toog ñu def ko une loi fermée loolu moo ñuy protéger ci gars yi duñ ko dem ba transformé parce que boo ko xasee transformé ba am titre foncier. mais vraiment gars duñu duñ ci mën dara pour pour kii la mais vraiment mais dama lay wax coow bi bari na. Mhm. mais maire yi c'est-à-dire l' ensemble de conseil bi am na génne nañ ko tey liste bi. waay la l' ensemble des utilisations de conseil opposition bi mooy euh, les maires PS la mooy maire maire euh, kii Khalifa mm-hmm. ah, xam nga fii bu dee Dakar benn maire lañ benn maire lañ fi gagné woon. muy mm-hmm. gée maire maire kii muy maire euh, Yoff. Mm-hmm. tout le reste là maire yi ñooy def autorisation de construire donc ñi fa am autorisation de construire ko amul avant. ci Abla ci nguuru Macky Sall ci nguuru Ablaye waat ñu ngi ko am ci ci ci ci les maires xarfis bon d'accord loolu lépp xëy na ay mbir la yoo xam ni maires yi effectivement ni ñu dénk suuf si il faut tamit parfois seen loxo dugg ci d'accord nañ ci loolu léegi bu ñu jógee ci suuf si parce que danaa ci dellusiwaat léegi am na yenn ay laaj yuñ ci war a laaj parce que dafa mel ne daal am na proposition yu bari yu ñu tegoon ci taabal yi Macky Sall mais loolu surtout proposition yooyu ci wax xam nga proposition yi xam nga président bu la nee demal xoolal benn affaire mhm. da ngay dem xool aide à la prise de décision mais yow c'est pas parce que li nga xool parce que moom la Sénégal wóolu moom la teg ci kanam moom mooy xool li ko li li li arrangé économie bi wala li arrangé la paix sociale mu def ko da ngay étudier rek indi tu as bi ñu étudier indi ñoom proposition yi ñu defoon proposition bi ma ci jàppoon man mooy que ñu donc gestion suuf si maire yi et puis on s'est dit que ñii déjà dénk ñu leen gestion suuf benn maire amul droit ci ay suuf jël suuf di ko jaay amul droit ñi dénk ñu leen ko ñuy def nii ci suuf si jur bu ñu leen dénkee suuf si ñuy jaayee ak dindéegte kon benn suuf dootu fi deseti mm-hmm. hmm? loolu moo doon la la la plus grande proposition moo tax état bi ni et président ni man kon conclusion bi ñu def man mënu ma ko def naa ko jëlaat ah xool toujours état yore ko impôt et domaine yore ko ñu xool niñ ci mën def ok c'est ça la difficulté ok ah. Euh, Abdou Ndéné euh, lu tax euh, ma ñu senegal gépp seetlu ne seen terre bi surtout yow bi nga yore dem bi ak dikk bi date bi bu ngeen fekkente ne mënu leen ko yàqeeti wala ne bu wax ne un jour jour te lay <laughs> xam nga sagaru atraay bu dawal woon di kan affaire affaire affaire xam nga xam nga xam nga terre bi. wax bi moom bari mais c'est nit ñi duñ ñëw jël si information parce que ñun on a ouvert nos portes nañu ku terre bi ku ci bëgg a xam dara ñëwal dañuy def comité. des comités bu nga xam ne. mais ñaata ngeen repoussé date bi. repoussé oh, xam nga problème mooy neel neel. ah neel dañoo def dañoo def dañoo def appel d'offre attribué nit ñi di engagé wu entreprise yi engagé wu ni dinaa pare telle date ku nekk engagé dinaa pare dat date ñu jël def un planning directeur léegi engagement boobu entreprise yi joxe woon. c' est les mêmes engagés c' est les mêmes dates ñun on ne fait que répertorier ni en ñi ñi signal appel d'offre nee nañu telle date lay pare donc dina pare telle dat donc loolu nag bu fekkee ni que le 14 janvier bi ñuy réception il faut que gars yi xam ni réception jalon par jalon la xam nga train dafa am plusieurs composantes dafa am composante raay bi hmm? mhm. am composante infrastructure yi raay bi pare na am waaw pare na am ko léegi nag le 14 janvier le président li mu doon inauguré c' était la continuité ferroviaire c' est à dire nga jël autorail nga jógee nga jógee Diamniadio ñëw ba gare de Dakar ak réceptionné gare de Dakar ak gare de Rufisque loolu def nañ ko loolu moom kenn mënul weddi ni effectué gare de Dakar pare na gare de Rufisque pare na depuis le 14 janvier ak nga jóge mën na jóge terre bi mën a jógee ñaajo ñëw Dakar loolu réceptionné nañ ko mooy un premier jalon mais xam nga terre bi dafa bëri composante composante beneen bi comme terre bi c'est un terre électrique il fallait ñu jël emprise bi def ci ñaari mur nga xam ni kenn du ci dugg parce que zone boobu c'est zone encombrée te électricité la ñu teer bi di daw loolaale ay nit te xam nga sénégalais moom moo tax ñu def mur xam moo tax même loo expliqué expliqué tant que defoo mur boo xam ne moo leen di kare ah gars yi dañuy dugg ci dañuy dugg ci kii boo tax ñu def mur boo defee mur nag amatul passage à niveau. Mhm. donc il faut que oto yi bu ñu mënee jóge fii ñoo fee ay pont établissement routier ñu def ci à peu près fépp foo xam ni oto dafa doon traversé raay bi rek dañuy teggi passage à niveau def fa pont. et puis foo xam ne nit ñi dañuy traverser aussi à chaque trois cent mètres ñu def passerelle pour nit ñi di jóge côté bi jóge côté bi loolu nag les autres composantes qui doivent accompagner le TER yooyu ñoo xaw a tardé te lu tax mu tardé aussi euh, bi ñu joxee par exemple bi ñu joxee passerelle yi dañuy def en appel d'offre jox ko certain ah ñu ko joxee certain yeneen entreprises yi gañewul def recours mhm. bi ñu defee recours mu tardé ay trois mois de recours demal bàyyi demal dikk kii na ba ARMP autorisé waat ni que eh, c' est vrai que air certain moo gagné mu daal di ñëw commencé liggéey parce que problème bi mooy nit ñi dañuy defe nii looy def rek da koy def loo neex léegi ni actuellement avec la réglementation et la régulation des marchés munoo def loo neex boo moo lancé appel d'offre boo joxe ko kenn bu fekkee dafa am recours rek dañuy arrêté yépp xoolaat dossiers yi ba d' accord te TER bi toujours dama leen di wax ça a été une transparence dañuy lancer appel d'offres 66 entreprises ñëw les meilleurs du monde les meilleurs du monde ah onze nationalités différentes ñu jël ci ki gën mooy ki ki ñi ko ñu tànn ñi ko mën def jël ci ñi gën a tuuti prix ah ñu yónnee non objection BAD mu ne d'accord na ñu yónnee non objection BID mu ne d'accord na ñu yónnee non objection AFD ñu ne d'accord na ñu yónnee non objection les les les organes de régulation des marché et ci Sénégal ñu ne nañu donc. bu fekkee ni yow bu fekkee ni yow loo xam ni BID nee na d' accord na BAD nee na d' accord na ñu financé AFD nee na d' accord na les organes de régulation yi nga xam ne ñooy contrôler des marchés fii ñi si des organes autonomes ARMP autonome kenn mënulu ko dara mu d' accord donc vraiment amatul fii lu ci xool. même question de rentabilité aussi ci dem leen di wax benn bailleur de fonds du du ñëw financé loo xam ne science na du ci am retour sur investissement. science na du ci am science na ci am rentabilité. donc ñëpp. Mhm. ils ont financé sur la base de de de d'une analyse financière sur la base euh, d'une analyse de faisabilité du projet. d'accord mais xam nga ci bailleur yooyu nga wax léegi. Mhm. est-ce que tey jii mën nga leeral nit ñi. Mhm. parce que bopp Sénégal yi ba léegi et je te donne un nom. boo xam ne ki bi ngeen ci wàllu politique. wàllu opposition bi Ousmane Sonko bu Pastef. ba léegi d'accord leen ci milliards yi moom li mu wax. yéen li ngeen wax ne moom ngeen def ci terre bi. ak moom li mu avancé tey est-ce que tey ci ci nga ñu may occasion ci Sud FM mhm. nga wax ñaata milliards ngeen def ci TER bi coow li na coow li jeex xam nga woon prix xam xam xam xam nga loolu xam nga daal la ko waxaa ah. mais je te dis quand tu lances un appel d'offres le prix n'est pas important boo lancé le prix important si si boo lancé appel d'offres ah bon c'est c'est la transparence totale tu tu am na coût dama di wax coût TER bi mais dama ne la erreur bi ah, erreur bi ki ngay wax li mu wax erreur bi ma xamul ne quand tu lances un appel d'offre oui. le plus important parce que tu as la concurrence c'est-à-dire yow boo amoon fi mu ne comme yéen rajo ngeen ma jël si rajo ma jëloon par exemple seen exemple mhm. état bi bëgg a def benn benn communication wax télé yëpp damaa bëgg a def benn communication ñaata ngeen ma koy defal ah télé yëpp ñëw kii wax cent kii wax deux cent ki wax trois cent ki wax quatre cent mu ñëw tànn ci ki gën a moyen dix cent wax kii wax cent loolu la mën a jar au minimum parce que ñëpp jox nañ seen offre. mënul am beneen offre comprendre nga. parce que on a fait un appel te appel d'offre bi c'est un appel d'offre transparent parce que ñun mënuñoo mënuñoo bluffé bid. mais appel d'offre bluffé bad. bluffé waaw jeex na. waaw léegi maintenant. le coût le coût bi ñu attribué marché bi dañu attribué woon presque à cinq cent quatre-vingts. cinq cent quatre-vingts milliards après waaw après ñu am avenant oui avenant xam nga marché bu nekk mën nga am avenant 30 pour cent c'est c'est par la loi. oui nga am avenant 30 pour cent. Mhm. mu ñëw à peu près six cent six six cent quatre-vingts milliards. oui oui. six cent quatre milliards. pour que les Sénégalais ñëpp ñu comprendre na léegi terre bi six cent quatre-vingts milliards ngeen ci def. oui. xam nga xam xam nga xam nga problème xam xam lu tax ma ne nit xam problème yenn saa yi boo comprendre da nga am problème gis nga projet. oui bala nga koo bala nga koo lancer. pour que état bi jox la autorisation nga lancer. da ngay joxe existence de crédit. c'est-à-dire que existence su fonds yi. Mhm. ah ni lii mooy fonds yi liñ ci mën def. gis nga fonds yooyu boo ko dépassé. Mhm. amatoo foo jëlee parce que boo dee leb xaalis da ngay da ngay leb kenn ni ko lii laa soxla pour def léegi fonds boo ko dépassé amatoo foo ko jëlee. comprendre nga. moo tax ñu lay laaj bala ngaa lancer après nga dem attestation d'existence de crédit. y a aucun y' a aucun problème. c' est à dire dañuy respecte mais mais chiffre Ousmane Sonko tudd ko si Ousmane Sonko. ah mais li muy wax. mais il non li muy wax na am benn papier li muy wax c' pas cohérent xam nga problème bi mooy man je n'ai aucun aucun aucun truc à à cacher looy wax aussi day wax cohérence dañuy une cohérence d' ensemble parce que moom li muy wax mooy jël projet bi yokk ci taxi yi hmm, yokk ci tax un projet financé par l' lu ñu la fay mukk taxe parce que bu ñu la fayee taxe. taxe mooy li nga xam day dem ci ci keesu état bi. Mhm. ñu defee ko leneen ah. Mhm. tu as donc additionner taxe yi additionner le coût de la dette mhm. ah. waaw nga ne yow booy tabax kër nga def leb banque banque bi lebal la cinquante millions kër bi nga tabaxee ko cinquante millions. loolu bu la kër bi ñaata la jot cinquante millions ngay wax non. mais mais doo wax ni kër bi mi ngi jar cinquante million plus intérêt yi nga xam ni. banque bi daf koy daf koy jël. kon da kon Sonko dafa juum. dafa juum. ah bon d'accord en tout cas. te man répondre naa ko xam bi mu bi mu interroger bi mu interroger état bi. ci au niveau de l'assemblée. man maa ko répondre avec vraiment une lettre une lettre bien précise en en en tout cas en jox composante yëpp lu muy lu muy jar ni ko dem nga boo demee AR boo demee site ARMP di nga gis. tous les marchés attribués ñaata la xam nga problème mooy xam nga lu tax marché mënoo ci mënoo ci wax lu dul dëgg. parce que da ngay ñëw attribuer marché yi. da koy attribuer ci concurrence bi nga attribuer kii lii kii lii kii lii boo additionné marché yëpp moo lay jox coût du projet. d' mais mais. mais c' est pas mais toujours le coût du projet. oui pas important. Mm-hmm. parce que ce qui est important. c' la rationalité du projet. parce que coût projet boobu xam lu ñu ko financé le coût de l' parce que bu ñu toogee ñu dara on perd en termes d' externalité négative cent milliards par par par année ci conjonction Dakar. oui boo toogee quatre ans boo toogee six ans defoo dara. nga perte six cent milliards sur l'économie sénégalaise président dina damay jëli wut six cent milliards defar terre bi pour wàññi perte boobu. d'accord defar terre donc c'est le coût c'est le coût. oui c'est le coût de l'inaction oui oui le coût pendant six ans finance de terre. d'accord de toutes les façons six cent quatre-vingts milliards moom ngeen def ci terre bi. pour ñuy déglu rajo bi xam ne tey euh, directeur général bi nga xam ne moo yore seen terre loolu nga fi ay quelques. différence ci euh, chiffres yi ëpp na ko. non non cest à différence bi. xam nga problème mooy da ngay posé fii ba jëm ñaajo. xam nga aussi fii ba jëm ñaajo mooy six cent quatre-vingts millions. maintenant lorsqu'on va aller à Thiès parce que président dafa wax ni moom dafay def maillage ferroviaire dafa am une dafa def maillage ferroviaire c'est-à-dire dafa bëgg a maayewaat. Mhm. def de Dakar jëm ñaajo après jëm ñaajo AIBD après jëm ñaajo Thiès. et ak Dakar ak Dakar Bamako bi aussi ñu financé ko mu dem mu ñu def Dakar. léegi Kidira ngeen yem kat. ñu def Dakar Bamako. non Kidira c'est-à-dire dañuy def ñun ba Kidira. waaw ngeen taxaw Mali Mali def fële. oui Mali def fële. Ah, mais ñun ñaar ñëpp comme benn financement la ñu am Banque mondiale moo financé ñaari dëkk yëpp donc c'est une même entreprise qui va faire tous les deux. d'accord même société privée bi ñuy jël mooy def ñaar yëpp. d'accord mbokk yi ba fàttali ba léegi ñu ngi ci eh, jano bi ak Abdou Ndéné Sall mi nga xam ne moo di directeur général bu CNTR alors. Euh, conseil des ministres bi ah xëy na peut-être yow benn lecture mm. euh, benn jàngat ndax xam yoonu saxaar gi moom kenn du la ko jàngal mm. mais Macky Sall dafa dafa nommé monsieur Touré mm-hmm. bi nga xam ne fi mu toll nii société nationale chemin de fer bi moo ko yore mm-hmm. alors ci yore gi mu ko yoree dégg naa intersyndical bi ci ñoom Mbaye Tunkara ñu wax rafetlu ko en tout cas mm. moom nee na mm-hmm. c'est bien ñu ngi koy rafetlu mais est-ce que tamit ñu am ci yaakaar ne ñoom syndicalistes yi daan ci gis seen bopp te loolu la daan ëmp la ci moment bi nga xamee ne syndicaliste yi ci wàllu autorail bi amoon nañu ay jafe-jafe est-ce que yaakaar nga ni ça peut trouver ça loolu mën na trouver une solution. non xam nga xam nga xam nga dañuy xam nga ñoom dañu teeloon DBF lañu defoon. DBF Dakar Borobo Ferroviaire. koo xam ne dafay jël Sénégal ak Mali. Mm-hmm. maintenant dañuy def benn di ñuy wax euh, euh, schéma ah. schéma schéma schéma ah def benn schéma bi ñu def mooy. Mm-hmm. société bu à dëkk bu nekk def sa société patrimoine et puis ñu def une société d'exploitation commune jox ko privé jox ko concession kooku def ko léegi chemin de fer c'est-à-dire Mali créé na SOPAFER depuis daaw mhm. ah mooy société patrimoine Sénégal moo créé bu woon et que Sénégal vient de créer une société de une société patrimoine ferroviaire mooy patrimoine bi c'est-à-dire patrimoine bi euh, mooy raay bi jógee Dakar ba Kidira mooy li ñu moom ñu ñooy wut. moo tax ma la lekk ñuy wut ñuy wut ñuy ñuy wut suñu financement. Mhm. pour defar ko banque mondiale financé na ko. léegi aussi ñee wut seen financement te moom léegi après bu ñu paree nag ñu def un appel d'offre jox ko une société privée bu def concession kooku mooy def exploitation bi. Mhm. mais euh, chemin de fer du Sénégal deful exploitation. d'accord waaw Sopafer deful exploitation. d' accord kon noonu la noonu la yëf di tëddee. noonu la yëf di tëddee bon d' accord de maintenant maintenant ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi mhm. vraiment parce que c' est un secteur qui est presque à mort ñi ngi encouragé quand même euh, Kibili. Mhm. Euh, bu ko defee ñu farlu. quand même ci. Kibili Touré Kibili Touré ñu farlu ci li banque mondiale proposé pour pour ñëw parce que quand même wër nañu fu nekk avec le secteur privé mënuñu am un financement secteur privé parce que ñëwee ñoom secteur privé bu ñëwee. day xool comme ni ñu amee ñun euh, financement avec des bailleurs de fonds ñoom dañuy xool viabilité économique. Mm-hmm. ak rentabilité et tout ça am comme amuñu une demande très forte sur Dakar ko parce que Dakar Bamako ko ay ay conteneurs rek lay yóbbu conteneurs rek lay yóbbu xam nga mooy le fret. Mm-hmm. du du du Mali. ah amagul déjà ay mines ay mines yu nga xam ne yu bari yu nga xam ni c'est une demande bi nga xam ne moo ko mën a rentabiliser moo tax Banque mondiale wax ni que. je finance le projet euh, niveau d' investissement bi temps laa ciy def boo ko defee mu doon un projet économiquement viable. léegi d' accord nañu parce que quand même depuis trois ans quatre ans cinq ans on cherche à financer des choses là avec une structure privée mais on n'a pas eu de résultat loolu moo doon suñu problème. ak ak ak ak ak ak ak banque mondiale mais léegi c' est réglé donc vraiment li ñu waxoon schéma schéma euh, d' organisation bi ah def nañ ko. ba d'accord mais ci terre bi defe naa ne loolu am na ñu bari ñu wax ne jeex na loolu moom bu dee jeex na alhamdulilah mooy ñi dëkkoon ci wetu raay bi te tëjoon seen i kër ñoom ñëpp fay jox ngeen leen seen ndàmpaay. waaye ñi nekkoon ñi nga xamoon dañu amoon ay kër. yooyu yëpp jox leen seen mais waaw dañu tojoon ko. ñi ci am ñi ci ñi ci des. ñi ci des mooy ñi ah, nga am na lu des. waaw ñi ci des ñi ci des seen xaalis mi ngi fi. jox leen ko mais non c'est-à-dire problème bi mooy xam nga yenn saa yi kër yi day jaxasoo il faut ñu am ay ay papiers ay certificats d'hérédité ay trucs doo xam nga jox parce que dal nañu ah dal nañ ci ay kër yi nga xam ni dañuy ñëw bon gars yi lijjanti ay papiers jox ñu fay ba pare ñu leen ñëwaat daal ni ñoom bokkoon nañ ci di di di di donc yi des rek mooy yi am xaw a am ay papiers mais sinon ñu indi papiers yu leer yëpp fay nañ leen. ak ñi nga xam ni ñoo des ñi des mu ñu des tuuti mooy ñi nekkoon les marchands ambulants la yi nekkoon ci. ci côté bi ñi nekkoon ci côté bi xam nga ñooñu amuñu tiit amuñu dara mais il faut ñu enquête def nañu enquête yàgg yëpp xam ne ñi ñi fay mais xam nga ñoom ñu bari dañ naan ah gars yi bu ñu ma fayee rek après marché xam nga dañuy tabaxaat beneen marché foofu ci biir camp de Thiaroye pour déloger leen foofu mhm. ñu bari dañ naan ah bu ma jëlee sama xaalis rek xëy na duñ ma jox fële et tout ça donc mais vraiment yooyu yëpp amatul déggatoo problème mu ay ñaxtu ci affaire libération d'emprise waaw libération d'emprise moom vraiment ça s'est très bien passé douze mille cinq cent personnes yi impacté woon yëpp defal nañ leen ba pare président jaaraat ci ginnaaw mais ci deux mille personnes yi nga xam ne dañoo xawoon euh, ndóol ñu may leen ci ay terrain yoo xam ni yéen yi ñi nga nekk biir camp de yeneen yi nga nekk euh, Lac yeneen yi nga Malika xam nga biir camp de Thiaroye aussi boo fa ñëwee may fa ay may fa ay ay ay ñuy impacte terrain te militaires yi nekkoon fa yàgg fa ba bëgg dee doon ñaan aussi ñëwit fu ñu dëkk caabi joxoo leen ko day indi quelques quelques frottements. Mhm. donc on a eu beaucoup de difficultés à ak militaires yi quand même accepté aussi ñu am jël foofu espace jël nañ fa déjà sept hectares pour faire un marché pour faire le marché là le marché de Thiaroye nga mhm. xam ne mooy mooy fala ñi nga xam ne ñu ngi woon di jaar ambulant ci wetu raay bi ñu jóbbu leen foofu bëgg jëlaat bëgg fa jëlaat aussi ay hectares c'est un peu compliqué mais yooyu yëpp yooyu yëpp vraiment président dimbali nañ ci ba yooyu yëpp toog nañ ko TER bi kañ lay tàmbali. TER bi bëgg nañu bëgg nañu bëgg nañu tey cette fois ci. cette fois ci avant la fin c'est-à-dire. avant non loolu ay météo war a gëfee naa waxati sama sëriñ. non non cette fois ci balaa fin d'année. et puis non yi ñuy wax yëpp. c'était basé sur l'engagement des entrepreneurs. mais ñoom engagé wu nañu ba pare. ñoom engagé dara li ñu mës a wax yëpp délai yi ñu mës a wax yëpp. amul benn délai. bu ci bu ci bu ci glissé. parce que on a donné c'était on avait dit. su l' engagement des entreprises. Oui. parce que actuellement délai yooyu ñi nga xam ne dañoo tardé seen liggéey engagé woon sur un certain délai on finit le marché après on va en contentieux pour xool li nga yow da ngaa tardé ñu ñu jéem jëm la jëm la jëm da ngaa tardé respecté woo sa contrat pour jëm la xool ay pénalités yi ñuy def. Mm-hmm. mais xam nga problème bi mooy dañuy nekk bëgg a pare boo bëggee pare bëgg def ay pénalité da nga yàq marché bi parce que marché bi actuellement ñun Sénégal soxal ñun ñoo mën a am risque d'offre boobu ñu ñoo war a bëgg am terre bi donc on s'arrange ba terre bi pare après nag ñu xool affaire yu ku nekk li nga responsable. pour le moment en tant que directeur. en tant que directeur na acteur bën naa joxe date. te di avant avant décembre euh, deux mille deux mille vingt. dinañu commencé avant la fête la mais mais loolu du avant la fête la ne avant la fête la ne kay date la parce que datu datu datu. teer booy def ñu ngi koy def depuis presque trois ans donc avant la fin la ne année moo fee un mois ou mois avant. su ma déggee sax mooy du génn deux mille vingt non avant la fin de l'année kay 2020 avant la fin de l'année. waaw xam mooy mooy mooy ci wolof balaa at mee jeex. balaa at mee jeex. donc donc 2020 bi. waaw waaw mooy duggee at mee. ci dernier trimestre 2020 la ñu commencé fonctionner. ah à partir de juillet jëm kaw. de de de de. juin non non non octobre octobre octobre novembre ah, décembre. octobre bu waaw ah. d' accord d' accord d' accord c' est bien loolu. ci beneen juróom mais li ko li ko gën a tàddal. mooy impact Covid bi quand impact Covid ah, bi parce que parce que parce que bi Covid bi ñëwee aussi. étranger yi xam nga dañu waxoon ni Afrique ce sera l'hécatombe et tout ça donc ñoom dañu jël seen experts yi nekkoon fii yëpp. Mhm. jël leen yóbbu leen ñu ragal Afrique. alors que fi nii Afrique moo gën a. moo gën moo gën a génn génn ci feebar bi. oui d' accord c'est ça mais léegi ñi ngi aménagé sax temps yi comme tijjeeguñu frontière yi ñu xool nu ñuy aménagé bi indiwaat leen parce que nee nañ leen léegi Sénégal moo gën a wóor sax nekk extérieur. ci hmm. affaire bi. d' accord fan yii ñuy am na benn benn benn benn jàngat bu ñu defoon ci élection local yi nga xam ne moom la ñuy dëgmal est ce que dina mën a nekk mars bële 2021 comme ni ko gars yi waxoon société civile bi barki dem ci journal bi. am na ñu ne est-ce que duñ ko puusaat est-ce que li li ma waxoon keroog rek ba léegi nii Macky Sall nii les partis politiques yu nekk opposition bi kenn xamul kañ la. mais loolu loolu moom dama lay wax xam nga ñenn ñoo responsable. Mhm. ah mhm. xam nga affaire bi. amoon na dialogue politique. dialogue dialogue dialogue politique bi. dialogue politique bi ñoom bu ñu d'accord xam nga ñun on est prêt nee naa ñun waxoon nañ leen ni suba sax mu ngeen bëggee ñu def ñu def élection yi. loolu Macky Sall wax ko de. non Macky loolu président Macky Sall le grand président Macky nga xam ne woo na ko ne day gagné. moom loolu la wax. ku la wax ne day gagné day gagné on n'a pas de problème li ñuy def ci dëkk bi avec euh, réalisation yi def ak politique vraiment yërmande. bi mu def social loolu benn affaire la. dañuy gagné dañuy gagné élection locale élection locale bi mu ñëwee BEPA élection locale sur 532 communes presque 400 cent ak 500 500 yi ñoo gagné. donc donc vraiment on est majoritaire largement majoritaire ah foofu boobu élection sax moo gën a neex. parce que raw gàddu la donc ñun dañuy gagné. amuloo benn gis-gis benn lecture ci ne nañ koo def ci 2020 moom mënatul nekk. ça dépend ça dépend ci les que problème de confiance la les acteurs politiques ñoo ni ils n'ont pas confiance au fichier ils organiser kii bi dañu bëgg def dialogue politique pour d'accord ci lépp ñoom tant que d'accord ñun on est d'accord surtout tant que ñoom d'accord nañu rek. Ah, ñu def non ñun d'accord nañ ci lépp. d'accord d'accord nañ ci li fi nekkoon. li nga xam ni moo taxoon ñu gañe élection yi li nga xam ni moo tax ñu gagné woon ñu ñu gagné ñu ñu euh, ki euh, kii yoon noonu gagné on a rien changé. loolu la ñuy tegaat loolu la tegaat gis ni c'est fiable bi ñu defee audit fichier bi yooyu yëpp gis nañ ni que vraiment y a aucun problème y a une fiabilité de de plus de quatre vingt dix problème carte yëpp réglé nañ ko mais ñoom ñoo ni wóoluwuñu fichier bi dañ ci am ay doute dañu am ay truc moo tax ñu leen affaire baa ngi nii yéen lu ngeen d'accord rek lu ngeen d'accord rek ñu sëgg bëri. ngeen bëggee léegi sax ñu sëgg donc loolu moom vraiment loolu question boobu da nga koy poser opposition. mais dama dama seetlu ne souvent en matière d' élection yow daal sa xol mu sedd nga ci àndal quoi yow doo doo perturbé wu. non man dama mais non mais attends. mais hmm. Abdou Ndéné Sall mais département bi c' est que gagné woon ko fii ci élection yéen ñu génn sans coalition loolu moom. Euh, ñu ngi la ci sax sargal parce que yombul. mais mais mais man li ma jaaxal mooy affaire bi mën na changé non affaire bi day gën politique politique ne. dafa war a gën a yokk. waaye fu yokk. xam nga tax mu war a gën a yokk ñi nga gañe woon ku ñu gañe woon réew mi ku ñu gañe woon PS ku ñu gañe woon PDS ñooñu ñëpp dañoo ñëw léegi donc normalement kay dafa war a yokk élection locale ci département bi ñun dañu gañe woon coalition PS PDS réew mi gañe coalition Aar Sénégal ñoom ñëpp ñëw nañu léegi ànd ak ñun donc lu ci desati. ah ci loolu foofu nga ko teg daal. waaw mais PDS ay ñaar ñett ñoo ñëwul tout le reste ñëw nañu PS ñëpp ñëw nañu. Ah, PS moom. ah ah, ah réew mi donc ah, vraiment ñun ñu ñu ñu ngi woon non réew mi ki leen doon ki leen doon représenté dans le département ki fa gënoon xarañ mooy euh, député Cheikh Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Diouf maa ngi koy nuyu ñëw na donc vraiment fi mu ne nii ñun on n'a pas de problème moo tax ma ne la comme président Macky Sall ni mu paree ci département de Tivaouane ci commune Tivaouane pare na ci yëpp léegi opposition bi ñoom ñoo parewul mais bëre moom pare nañ ñun. léegi daal may leen leen ñu nettoyé xool li ñu bëgg ci. fii waaw ñu bëgg rek bu ñu paree. ñoom bu seen xel dalee rek. nañ ñëw ñun suñu xel dal na xam nga la war a wax sa département bee nga war a wax. si yow département ñun amuñu problème non suñu département mënoo gagné lépp mais bu fekkee dafa am quinze na dafa am dix huit collectivités locales ah nga gagné quinze yëpp bàyyi ci trois. quand hmm? même loolu c'est une performance. waaw d' mais sa côté. Ah. mais am na ci côté Bawol bii ak côté Saloum ak. waa côté Bawol côté Saloum xam nga. boo deful xam nga élection élection maire comme raw gàddu la. foofu mais. man xam naa ne dañuy gagné yëpp maire amuñu problème maire vraiment dañuy gagné. Mhm. xam nga problème problème bi ñu nar am xanaa. Mhm. ñu am ay xëccoo. c'est-à-dire ñaari APR. APR ñëw ci benn ñëw ci benn ñëw ñëw ci benn ñëw ñëw ci benn dëkk. au lieu ñu dajaloo. gañe ñu nekk di xëccoo ñu ñëw di xëccoo ba kii non xam nga problème bi mooy. comme léegi raw gàddu la léegi. Ah. léegi sax gën na leer. ba nekkee boo wóoloo sa bopp. nekk tëdd liste. gañe amatul ay ay ay. ay conseil dajaloo mu am ay ay ay nga neexal nii neexal ni tiraillement ku ku ñeme daal da def tëdd liste nga gañe c'est mais vraiment. nañu man damay ñaan mooy coalition bi nga xam ni comme ñun ñëpp ñoo bokk day bokk bàyyi ni dañuy accompagner président Macky Sall ñu am benn candidature coalition ñu jàppale ko mu dem te loolu dina gën a yomb bu fekkee ñun ñii nga xam ni ay jox nañu ndomba tànk quand même nekk fii am lu ñu doy ci am lu ñu doy ci liggéey ci li nga xam ne président daf ñu ko dénk war nañoo bàyyi ñeneen ñi nga xam ne ñooñu ëpp jot te ñu jàppale leen ah pour defar pour defar kii ñu jàppale leen pour ñu réussir d'accord tam ci ci ci maire bi mais bu ñu bëggee ñëw am ndombo tàng ba pare bëgg dem xëccoog ñoom foofu aussi day indi ay problème mais du quel que soit alpha discipline de parti la ñuy def quel que soit alpha ñun dañoo gagné woon sans problème dañuy gagné waat et tout ça on va choisir le bon candidat pour euh, pour département bi ak pour commune bi daal di koy jiital ba pare euh, topp toog pour mu gagné. d'accord Abdou Ndéné Sall gis nga Covid 19 bi impact mu def sur le plan économique euh, ci pratiquement man na wax ne secteur yëpp la Covid bi laal. amul muy éducation bi santé partout santé moom sax foofu la gën a ëpp mm-hmm. mais euh, ci Thiès ak li ko wër ak li ko. Mm-hmm. kii bu fekkente ni raay bi na mu waroon dana dem mu noonu njàng mi nangam ak nangam. Mm-hmm. léegi naka ngeen ci li ci gën a doy waar ngeen dem séddale ab séddale pour sénégalais yi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw far séddale ba nekk séddale bukki ñi am ñi amuñu gis nga dans journaux gars yi am na ñoo xam ne matuñu même général bi dégg nga li wax dégg nga Ndiaye li mu euh, mm, mm. wax na ne affaire yi matul pour ñëpp te aussi am na ci kit yoo xam ne mm, dafa mel dafa am wàññeeku gu ci am li naa ay réseaux yu ci am ay ay camions fii moom daal yëf yi jaxasoo xam nga dañuy yooyu yëpp amalgame la xam nga affaire bi affaire bi xam nga dañuy dem revenu national revenu unique national jël te loolu moom moom euh, kii euh, registre unique bi moom la ñuy jël ñu ngi ko jëlee ci euh, ba ñiy def bu sécurité familial mooy la délégation ñoom ñoo defoon études yooyu xool taux de bi fu nekk dañu xool ci ña fa nekk commune bu nekk ña fa gën a pauvre ah mooy ñi amul bourse sécurité familiale ñoom lañ jël yokk ci tuuti lu mën a doy nag tu as pour quinze millions de sénégalais boo jëlee loolu du mën doy mais on a demandé au maire ñu faciliter leen ñu defaraat seen budget réaménager ko ba pare aussi ñoo it ñu joxe réaménager aussi des budgets des des des des euh, présidentes des des des conseils départemental ñoom it ñu jël fa joxe ñu ni aussi képp koo xam ne autorité politique nga te am loo joxe aussi c'est l'occasion nga dem joxe mais mënuñoo jox ñëpp kenn mësul woon wax ni quinze millions de Sénégalais yëpp wala pauvre pauvre ñi pauvre ci Sénégal yëpp la ñuy jox kenn mësul wax loolu. on avait dit dañuy jël ci bi. oui mais un million de personnes ñu jox leen. Mhm. un million de personnes yooyu ñoom la ñu ñoom la ñu jox. Mhm. mais mais mais mais ñu dem Sénégal yi seen xel dal parce que ñu doon xaar gisuñu am na ci côté Saloum bi ñu amul. côté Niakhou moom wax nañ wax nañ ñuy joxe yal na ñu ne 136 communes lépp dem na sur 530 lépp dem na ba pare gis ngeen ñu koy distribuer mais xam nga distribution affaire dafa bari ba nga xam ah les les c'est un défi logistique important et tout ça mais vraiment ce qui di ñuy saluer rek mooy que produit bi bi existe ñu jënd ko ah dem di ko yóbbu dinañ ko yóbbu ah mii am na ñu bari ñu jot ñu jot am na ñu bari ñuy xaar Covid bi jeexagul parce que ba léegi mi ngi mi ngi dem ah donc nañu accélérer dimbalante eh, dimbalante pour que affaire bi egg ce qui important mooy que affaire bi egg te dañu wax ku nekk wax nañ la di lay jox ñaari saaku ceeb. te te tant de savon tant d'huile ba ñëpp xam nañ ni su muy valeur soixante six mille ñëpp xam nañ lii la leen jox kon kenn mënu ko wàññi ma ñëwee jox la lu dul loolu mhm. man nga mel ni ah d'accord ma dem police tout suite parce que loolu ñëpp wax nañ leen ni li leen war a jox ñaata la. ok Abdou Leye est-ce que jàpp loolu bi bi affaire bi doog a ñëw Macky Sall li woote woon nga xam ne union sacrée boo mhm. parti politique yëpp ñëpp ñëw waxtaan ak ñoom ah. Mhm. ñu dem ba yàgg gestion bi dem ba yàgg. man dama xamul ci communication bi ci la faay bi am gars yi jékki kii Macky Sall xaw a defaat entre guillemets reculat kii gars yi léegi am na nag léegi. Ah, non gis ne léegi nag il faut vivre avec le virus. Mm-hmm. voilà léegi nag. non non c'est-à-dire koo fi gën a yokk non non xam nga transport bi bàyyi nañ ko. Mm-hmm. Aliou Ngouye Ndiaye nee na dem leen tukki léegi voilà voilà jeex na. nga xam nga problème bi mooy. loolu stratégie xam nga loo gis rek malade bu nekk ba bëri kumpa affaire bi dafa bëri kumpa bëri incertitude donc da ngay da ngay defar sa stratégie du nit ñi daaj boo nekkee président de la république mhm. hmm, ay nit fal la da ngay xool toujours lan la ñu gën a bëgg def say enquête boo xool ni population bi lii moo war ah par rapport ak virus bi nga def ko simplement ça on a simplement réaménagé amul benn reculade parce que quand même dëkk yëpp déconfiné nañu comme ñun ni ñu déconfiné amul benn dëkk bu déconfiné parce que boo xoolee boo xoolee taux boo fekkee boo fekkee taux de mortalité taux de mortalité bi benn nit la par par par jour yeneen maladies yi ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi yóbbu nit ñi on a presque combien deux cent quatre-vingts morts par jour accident rek on doon ci am deux par jour ah six cent six cent morts moo am ci accident yi donc vraiment benn mort par jour bëgg yàq nag parce que problème mooy demoon ba nga xam ni keneen ku feebar sax doo dem hôpital parce que da nga ni moo demee hôpital. dama fa dem ah, donc vraiment moo tax ñu di bàyyi ñu apprendre. à vivre ah en pensant que le virus est là li mooy les gestes barrières hmm, di raxasu respecter distanciation sociale bi ba pare aussi sàmm ñi nga xam ni ñoo gën a nekk à mooy ñi am mag ñi doon mag ba pare amoon benn maladie bi nga xam ni que euh, bu ci coronavirus ñëwee lonk ci day gën a metti mais lii. ñooñu ñooñu rek ñoo ci am ñoo ci am danger. man man seen liggéey bi li ma ci li ci xaw a jaaxal mooy bi affaire bi ne kërëb rëb rëb rëb ba ngeen ba ngeen ubbiwaat bunt yeeg yëpp. da ngeen yéen yéen wax ne benn la xaw a yitteel sax. Hmm. mais mais bind bind tur non fu jël sa carte d'identité non prénom diw Samba Modou fii ñu ngi voyagé fii. mais loolu mu leen ko woon informatiser mu jeex. non dañ koy détaillé en fait. parce que fii garage yi nekk bind. yi mais mais xam nga xam nga loo loo loo. garage am na ay bureau yu fa nekk am na ñu gérer garage bi. mais c'est-à-dire xam nga problème bi mooy jox nañu garage yi jox nañ leen ndimbal. jox nañ leen ndimbal jox nañ leen xaalis jox nañ lépp mais mais maintenant xam nga benn président dañuy commencer parce que loolu fa la ñuy jëm c'est-à-dire pour ñun dañuy dem c'est-à-dire il faut aller avec les moyens de bord moyens de bord lu tax ñuy bind parce que dañu bëgg a xam ku nekk képp ku dugg ci oto bi ñu xam ne dugg nga ci ku au cas bu amee fa benn cas ci oto bi ñu mën a retrouver rapidement ñu nekkoon pour circonscrire maladie bi comprendre nga. loolu tax ñuy def manifeste ñu xam ne oto bi ñi ñëw ci duggoon. bu ko defee dans quinze quatorze jours quinze jours bu kenn feebar rek ñu mën a jëriñoo ñëpp mën leen identifier rapidement mën leen isoler loolu tax pour vraiment diminuer euh, provocation bi mais vraiment c' est des très bonnes mesures c' est des très bonnes mesures léegi nag nit bu nekk moo war a moo war a moytu pour bañ a lor moroomam lor boppam d' abord bañ a lor moroomam et tout ça moytu ñuy takk systématiquement euh, masques yi di respecter les gestes barrières di raxasu euh, respecter respecter distanciation bi respecter masque bi même distanciation boo respecté wul au moins masque bi nga xam ni doo wàll kenn mhm. même boo amee kenn du la wàll yow doo wàll kenn mooy mooy masque yi quoi. waaw alors léegi wax dëgg Sall ba léegi ma fàttali ne yow yaay directeur général bu SENTER léegi nee nga balaa at mee jeex TER bi dana daw. nee nga tamit six cent quatre-vingts milliards moom lañ def ci terre bi kon léegi wuute nag bon ñu ay milliards nangam nangam parce que même corona bi man euh, dégg naa fi ñu na mille milliards. non c'est-à-dire dañuy nit ñi dañuy comprendre. Ah. mille mille xam nga jënd nañu lii 69 milliards jënd nañu ceeb beeg yooyu. léegi jox jox jox nañu jox nañu aussi ministre de la santé mu jënd ay. appareil mu importé appareil yu bari ak yooyu. maintenant maintenant maintenant non non c'est-à-dire mille milliards yi mooy total bi mais mille milliards yi dafa am partie boo xam ni nit ñi ñoo ko dugal. Ah, bien sûr appui am at boo xam ni dañuy réaménager du budget ah wàññi ay projets ñu waroon def dugal ko ci. am yoo xam ni dañuy dem mm, suñu les les les am ay appui appui bailleurs de fonds yi dem lebal ñu ñu daal ko ciy teg. waaw ah loolu yëpp c'est pour que. impact Covid xam nga impact Covid du rek nit ñi xëy na nit ñi duñu am xaa kii mais impact day impact bi impacté structure société bi yëpp nga tous les acteurs économiques ñi nga xam ni amoon nañu ay hôtel amatuñu nit bu fa nekk ñi nga xam ne amoon nañ ñi ngi woon ci tourisme bi ñi nga xam ni ñi ngi woon ci restaurant yi ñi muy impacté yëpp ah, dañuy def benn kii de résilience pour jéem a xool ni leen di dimbalee pour ñu commencer waa seen activité loolu yëpp loolu loolu ba nga nga xayma combien ça coûte c'est xam nga budget toujours dañuy wax c' est l' ensemble des mooy que 1000 milliards la ñu soxla pour l' ensemble des besoins yi nga xam moom la ñu xayma ah xëy na xëy na du fa egg xëy na mu ëpp ko mais de toute façon il faut saluer l' effort du président la république bu yëkkati 1000 milliards def ko ci Covid bi parce que vraiment y a des ñu gën a ñu gën a ëpp daraja ëpp ñu xaalis te defuñu loolu vraiment le président n'a pas abandonné. Mhm. la population il a tout fait parce que lii nii par exemple il au moins cinq cent millions yi nga xam ni ay ay ci budget bi la nekkoon yoo xam ne dañ ko waroon ay projet dañu waroon def yeneen yooyu yëpp dañ ko bàyyi dugal ko ci Covid bi. donc vraiment dañ naan nga dugal ko ci biir noonu. waaw bàyyi yenn yi dugal yenn yi. waaw waaw roppi fee kii fii wàññi. waaw waaw waaw équilibré waaw. très bien loolu loolu bu fekkente ne noonu nit ñi sant nañ ko noonu. Hmm. dañ la ci sant bu baax a baax. Hmm. en tout Sall looy wax waa Thiès looy wax sénégalais yi. looy wax tamit réew mi fi mu toll président Macky Sall politique bi li ñu dëmmal corona bi nga résumé ko ko waaw président Macky Sall damay wax nit ñi bon c'est un très bon président. bi nga xam ne bu ñëwee ba léegi dañ ci dañu xool situation de référence fan la dëkk bi nekkoon. Hmm. ak fan la dem. en ne faisant pas de de démagogie c'est-à-dire un à un man toujours dama leen wax polémique bi <laughs> jaru ko dañuy wax secteur par secteur boo jëlee électricité xëy xamaj dañ fi fekkoon six cent cinq cent méga lañ doon produire au maximum ñu yokk production bi yóbbu ko ba mille cent méga wàññi coupure yi amatul six cent heures de coupure ñu dem presque ay zéro heure de coupure ah? ñu ñëw mix énergétique léegi trente pour cent énergie propre la au moins solaire ak tic moo koy def métti parce que président de la république euh, il faut nga doon vraiment économiste dëgg pour xam lan la def parce que dafa jël les contraintes de l'économie mhm. mu ni énergie première contrainte mu def ci loolu ñu résoudre ko mhm. léegi li def ci énergie mhm. moo ñu yokk mix énergie bi wàññi prix bi tu as vu mais disponibilité énergie kenn mënut wax ne l'énergie n'est pas disponible après mu ñëw transport xam ngeen ni bon vraiment autoroute yeeg tali yeeg dax naa rek nguur bi fi nekkoon ñun actuellement on fait cent vingt kilomètres de route de plus par année par rapport ak nguur bi fi nekkoon. tu as vu te ñëpp xamoon nañ ni vraiment le président Abdoulaye jàmbaar la woon ci affaire tabax ay tali mais malgré ça président Macky sa dina def cent kilomètres cent vingt kilomètres de plus par rapport ak président Abdoulaye Wade li mu doon def. nga ñëw accès au financement les contraintes li nga xam ne moo gàllankoor économie accès au financement président daal ni comme. banque yeeg yooyu seen leble dafa cher man damay créer benn DER nga xam ne ku bëgg financement ñu jox la rapidement. Mhm. mu indi taux d'intérêt bi yóbbu ko 2 pour cent alors que banque yi boo fa demee di leb le taux minimum c'est entre 12 13 14 15 pour cent mu yóbbu ko 2 pour cent accès au financement. Hmm, beneen bi mooy la productivité xam nga ouvrier un ouvrier chinois boo ko nee defal mu 10 montres mën na la ko defal peut-être en 3 jours. Mhm. boo ko joxee ouvrier sénégalais. lu mu defaloo mu en trois jours dina ko defal en dix jours ah ñu ni loolu lu tax loolu ñi xam ni manque de formation la mu ne léegi damay généraliser école de formation professionnelle pour ouvrier yi gën a xarañ pour am productivité moo tax léegi dans tous les départements ñu def ay centres de formation di di créer ay centres de formation pour qualifier di ñi donc les quatre continents de l'économie yooyu yëpp fañ ko jële woon fa mu nekkoon ak fi mu nekk léegi vraiment y a une évolution significative loo jël rek

yi nga xam ni ñoo ci war a accompagner président pour que loolu dañ parce que dette boobu li ñu lebaloon doublé ne triplé na dafa triplé te jaruñu ñu dara parce que yëpp ay intérêt moo ko triplé ay intérêt moo ko tout ça donc vraiment ñu rééchelonné parce que ñoom parce que dañuy ci les les les les pays pays étrangers yi mhm. dañuy def presque planche à monnaie la ñuy def mhm. vraiment ah ils ont des endettements cent pour cent d' endettement yoo xam ne si supérieur à pays bi ñun ñu kale ñu ni fii ngeen di yem ci endettement bi ak tout ça qui freine notre développement donc dette boobu hmm. pour rééquilibrer dañ ko war a effacer te président quand même song na song na quand même mbir moomu mbir moomu wax ci hmm. euh, Macron jàppale ko ci ñu koy jàppale nit ci ñëpp toog xam ne loolu bu amee njëriñu Sénégal rek lay doon ak njëriñu Afrique d' accord Abdou Ndéné Sall ñu ngi lay sant bu baax. di la jërëjëf disponibilité vraiment. def nañ presque lu jege une heure de temps ci ndax waxtaan bi dafa am solo. maa wax nga lu am solo. waxtaan bi dafa am solo ngi lay sant bu baax a baax euh, ci sa disponibilité parce que gëjoon nga fi mais ñëwaat nga communiqué. leeral ñu bëree bëri ci wàllu terre bi ci wàllu euh, ñu nu jox seen xaalis mu dem ña ca des. Mm-hmm. wax nga ci corona bi wax ci wàllu wér gi wér gi yaram bi. mesure barrière yi ak li état bi taxawee. Euh, ak li nga wax ci président de la république ñu ngi lay sant bu baax a baax. président de la république moom. Mhm. sérieusement il faut que ñëpp ñu opposition ñëpp dañu war a ñëw autour du président <laughs> pour avancer bu ñu avancer bu ko defee dëkk bi boo koy yoree. nga yore ko mu fekk mu avancer bu baax a baax a baax a baax. Mhm. moo moo gën nga fekk ko foo xam ne da ngay nekk di liggéeyaat di liggéeyaat. c'est-à-dire les contraintes. Mhm. nañu toog c'est-à-dire kon bu ma doon bu ma doon vraiment bu fekkoon man nit ñi d'accord nañu. dañuy limiter temps politique bi ni politique. ah may nañu deux mois ou trois mois avant élection ñu def politique. tout le reste là les gens n'ont qu'à concentrer. sur l'amélioration des conditions de vie de population def li nga def. te nit ñi bàyyi hmm. di jël politique pour moyen de promotion sociale. nit dafa war a wuti métier. d'accord di liggéey. Hmm. bu la fa politique fekkee boo ci amee wërsëg nga am ci dara. Hmm. mais vraiment ñëw rek yow def politique métier loolu mënul dox du doxul dëkk. d'accord c'est ça moo tax pour président nommé kenn rek nga nga et tout ça parce que yow si métier yëpp politique la <laughs> te man d' accord naa ci transhumant yi président man d' naa ci de. Hmm. parce que xam nga boo nekkee boo nekkee di politique lan mooy compter nombre de personne yi nga am. Hmm. ah. ku mel ni Moussa bu ñu bu nekkul woon ñun xëy na du ñu gagné parcelle. jeex na ah donc vraiment donc donc kooku def def loolu indi nit ñu ba dañ koy nommer. d' parce que en politique il faut il il faut promouvoir les gens qui des des personnes. des jox leen des postes politiques. c' est d' accord tout à fait d' accord. merci beaucoup jërëjëf Abdou Ndéné Sall mbokk dimanche incha allah daañu di kat ci